bëggoon nga nga rappeler ñu lan moo waral nga woote ndaje mi tey. Euh, askan wi ñoo woote ndaje mi Baara wootewul ndaje mi askan wi njaareem ñoo génn fii ci kër Cheikh. waaye comme man communicateur traditionnel la damay communiquer ñuy déglu bi ma déglu di déglu suma kàddu moo tax ma nekk ci kanam nekk ci bopp bi en tant que communicateur traditionnel waaye en tant que askan wi askan wi laay waxal askan wi sonn nañu li tax tey ñu wootee fii ci Diourbel également ci quartier bi di kër Cheikh Ibra mooy facture courant yi seer na kontoor Woyofal dama wax ne dafa mel ni euh, président Macky Sall ak état bi dañoo xamul eh, dëgg-dëggi courant bi lan la fi mu toll askan wi xamuñu ko suñu xaman fi ñu toll askan wi dëgg-dëgg dañ koo war a wàññi waaye kenn waru koo yokk yokk yokk courant yemoo ci yokk courant xamoo mag mu feebar xaloo xamoo xale bu feebar xamoo ko am xamoo ko amul yokk ko bi nga koy yokk waxuloo ko non seulement askan wi parce que askan wi nag ñoom ñooy réew mi yokk nañ ko ci waxuñu ko ku mënul fay ñu dagg ko xamuñu mag xamuñu ndaw dafa mel ni 2012 nag président Macky Sall bi mu toogee ci réew mi programme yi mu tegan yëpp lu ci ne avancé na réew mi waaye mbooleem li mu liggéeyee nag dafa mel ni courant bi mooy ñëw xajamal ko bi ñu waxee compteur woyofal dafa mel ni woyofatut xanaa compteur compteur compteur woyofal bi ñu ko waxee dafa mel ni compteur bi dootul woyofal compteur bi dafa mel ni nag non seulement diisal waaye rayal la ndax askan bi askan bi sonn nañu kon nag dafa mel ni moom li ñu jëm ci kanam su fekkee dafa xalaat askan wi wala mu bëgg askan wi président Macky Sall lay wax en tant que communicateur traditionnel engagé woon nag ànd ak moom mbooleem programme yi am naa lu ma ci def am naa lu ma ci wax waaye dafa mel ni lii nga xam ne mooy askan wi moom yëgu ko sentiru ko parce que lii fa mu jëm ak askan wi mooy sanction bu mag mooy ñëw ci moom mooy ñëw ci état bi parce que lii ci askan wi la ko teg ci askan wi rek mooy réew mi courant bi seer na tàngoor wi metti na également waaye yokk nañ ko waxuñu ko. léegi courant bi seer na. oui facture bi ni nga ko waxee léegi euh, facture yi seer na yéen a koy fay wala. ma ne ma ne ku mën a fay danga fay ku mun la fay ñu coupé yéemul foofu contre woyofal ku daan jënd junni am am juróom benni fan soo jëndee junni am ñaari fan mu jeex nga jënd ñeenti junni doo am sax weer loolu fu nu jëm kooku du du du woyofal ëpp na sax diisal rayal la rayal la mettital la mettital la askan wi sonn nañu sonn nañu tàyyi nañu courant bi nag président moom laay waxal en tant en tant que communicateur traditionnel ma porté woon la ànd yow ànd ak yow man en tant que communicateur traditionnel mbooleem programme boo def muy PUDC autosuffisance en riz ah également muy mooy li nga xam ne mooy euh, couverture maladie universelle dama ko organiser magnifier ko ànd ko ak yow liggéey ko waaye lépp loo liggéey nag courant bi mi koy xajamal ma que xajamal nga askan ñun yorunu lu may ñetti néeg mbaay ñeen amuñu frigo amuñu clim di fay loolu xam nga ne jaaduwul daanaa fay 30 mille daanaa fay 25 mille daanaa fay 40 mille. léegi ñaata lañ la andil. ah fukki junneeg nangam. mi ngi ni jaaduwul jaaduwul loolu jaaduwul ca mag ah, ah dañ ci yow bi ñu coupé kaay yow bi ñu coupé ci ñaar fukki junni ah, ak lii cent mille ah. trop li ñuy bërki démb la ñu coupé facture boo xaye ñoo ngi daan fay au minimum trente cinq mille quarante cinq mille tey ñu bindal ñu facture boo xaye ñaar fukki junni ak ñeent la waaw vraiment seer na seer goo xamante ne gii seer na ci askan wi métti na nañ ñu dimbale woyofal affaire bi ba ñiiw li doole yëpp man cee jot asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ah? dañ laa jot a waaw dañ laa coupé keroog euh, talaata wala larba defe naa dañ ko coupé waaw cent vingt mille franc te bu nga seera ba seer di romb bokk sax cinquante mille franc bokk waaye tey cent vingt mille lañ leen di dañ lay coupé teg duñ la may dara duñ la may dara ne dangay fay nangam nangam. a ah, facture bi nit ñaa ngi jooy rek man sama kër gi ñaari def ñaari nekk laa am maa ngi ni ñaar fukki junni lañ ma fay ñaar fukki junni. loo doon fayee ko bu njëkk. man ay ñeenti junni ay juróomi junni ay juróom-benn junni. xoolal ma waaye léegi si ñaar fukki junni tey ñaari facture yëpp bu ci ne ñaar fukki junni laa fay loolu jaadu. dëgg yàlla Fatou Badiane ñun sonn nañ trop damaa mujj tey dem di ñaani dale ba ñu defal ma may may may benn waaye fi ne nii boo yeggee sax boo leen di ñaan dañ lay toroxal jaadu mbaa ñu coupé la parce que nee nga ñaari kër ñaari néeg la est-ce que amul euh, lu mën a yokk courant ah kay am naa benn frigo waaye ñaari néeg ma daaw ba damaa yoroon frigo bi yàgg naa man te mosuma fay lu man ñaar déedéet aw ma kilim kàddu gu mujj gi nag lii jéego bu njëkk la lii jéego bu njëkk la ku ne xam ne ñu ngi jëm ci élection la ñu jëm élection la ñu jëm monsieur le président Macky Sall ak état bi lii jéego bu njëkk la xam nga nga ne askan wi duñu dee tay di falaat koo xam ne da leen di rey di dee di tay je vous remercie. Baye Sélé ñu nemmeeku ni jamono yi facture yi dafa daal di tàng jër ci Senelec yow ndax mën nga ci yàbbi. waaw facture yi moom wax dëgg yàlla moom bari na trop facture yi moom metti na. waaw ñi doon fay ay vingt mille léegi ay quarante cinq mille wala cinquante cinq mille ñun ñii rek suñ facture cent quarante et mille ñaata nga doon fay. dañ ay quatre vingt mille. léegi nga fay ñaata facture ay doon ay 141 mille. Mhm. loolu dafa yokk yokk bi ëpp na trop dem nañ Senelec soo demee di ko rek di ko wax naan ay facture dafa seer dañ naan la ñoom seen yoon nekk ci mais en tout cas moom kaas nañ ko moom kaas nañ ko de. Mm. waaw métti na trop nag métti na waaw. waaw facture yi moom fépp la jot nañ ci ñun ñi fépp la fépp la fépp ñëpp a koy jooy wax dëgg yàlla seer na ni mu yokkoo moom dafa ëpp sax dafa ëpp wax dëgg yàlla borom kër yëpp a ngi koy jooy. xamuñu nag lan moo tax mu seer noonu ndax boo masaan jënd 1000 francs man sama kër ci boppam mille francs laa daan jënd mu def 10 jours. carte Woyofal fa compteur Woyofal nga yore. waaw compteur Woyofal laa yor 1000 francs yi su ma ko masaan jënd 10 jours lay def léegi su ma jëndee mille francs yi 5 jours lay def man loolu lu ma jaaxal la. même matériel bi nga yore sa kër wala am na yeneen lu ci yokk. benn matériel bi laa yor benn télé laa yor ñetti lampe. bon ak lan ak frigo te frigo bi bu ma ko taalee bala ma ko taalaat yàlla xam ndox bu sedd rek lañ ciy def léeg-léeg ñu def ci glace mais du bari rarement ba rarement lañ ciy dugal glace maanaam boo xoolee daal ñetti lamp yi ak télé bi mooy tàkk. non man damay consommer am na am naa ñaari frigo am naa climatiseur mais tamit cent ay cent maximum daaw ko romb ay cent quatre-vingt mille wala quatre-vingt mais bii ñëw moom dafa nekk cent quarante et un ëpp na. te même matériel bi nga yore. même matériel bi laa yore amul lenn lu ci manqué amul lenn lu ci yokk. waaw li may wax askan bi daal mooy ñu wàññi maanaam ni ñu doon utiliser courant bi ndax bu fekkee ci ñun la it loo taal loolu ngay lakk waaye bu fekkee ne du ci ñun it affaire be euh, affaire bee yokku il faut nga wàññi li nga doon li nga doon utiliser maanaam gën koo woyofal daal pour sa poos sa poos mën a gën a woyof nga mën a am jàmm ndax boo xoolee. man fi ne nii 5 jours yu ne damay dugal 1000 francs 5 jours yu ne 1000 francs te yow amoo engagement liggéeyoo ci dara lu may taqale rek am nga métti na ah kon bu yàlla dogalee nag maanaam ngay ngay ngay ngay yëngu ci loolu ah maanaam li ñu gënaloon daal ñu wàññi courant nga xam ne comme danaan danaan demee maanaam carte ya ñu wàññi woon fële ndax bu fekkee ne maanaam 1000 francs laa daan jënd mu daan def 10 jours léegi muy def 5 jours kon wàññi nañ 5 5 mégawatt léegi nag loolu loolu nag nañ ko siwaat nag ci askan wi man cee jëriñu essence bi dafa seer foo daan jënd 1000 francs léegi xaaju biteel bi boobu def 1 litre ah léegi biteel bi day dikk boo bëggee maanaam mën a daw benn fat rek maanaam faaw nga jënd 1500 loolu it li ma naqari la ci réew mi loolu it maanaam nan ñu ci dimbali bu ñu ci mënee dimbali man li ma naqari rek laay wax xeexu mu xuloo sa sànniwu ma kenn xeer waaye nag li ma naqari sañ naa ko wax mooy essence bi seer na ndox mi seer na courant bi seer na xaw ma nag lu ko waral ah waaw waa Sénélec dañoo war a jàppale nit ñi rek ci facture yi xam ne dëkk bi tamit metti na loo liggéey defaat ko ci facture toog loo am loo jox sa njaboot ku si nekk loo liggéey nga mun koo conserver ba pare fay facture bu nekkoon ay facture ay vingt cinq mille sax wala vingt mille sax ñu mën a wax mais ay facture sans nangam. Ah, yow soo amoon tey message booy lancé waa Sénélec lan la. xanaa ñu wàññi courant bi wàññi ndox mi wàññi dund bi dëkk bi metti na dëkk bi metti na tar na.